fukki fan ak juróom ci weer wu nekk deesu ca yeggale ab sëy deesu ca tukki ñaanu bis bi yow yàlla maa ngi lay ñaan nga defal ma dund dal ak faatu gu teey ak delluwaay bu nekkul gàcca allahumma inni asaluka aysatan haniyatan wa miitatan sawiya wa maradan gayra muxzin wala faadix allahumma inni asaluka aishatan haniya wa miitatan sawiyatan wa maraddan gayra muxzin wala faadix xadiisu bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee jaam bu nekk ca la ko dee fekk ca la ñu koy dekkal xadis bi muslim nettali na ko qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yubaasu kullu abdin ala ma maata alayhi rawahu muslim waxtu julli yi suba waxtu na dana tàbbi 5 heures 41 juróomi waxtu yi tegal ñeent fukki simili ak benn tisba 13 heures 28 benn waxtu bu tegal ñaar fukki simili ak juróom-ñett takkusaan ñaar fukki simili juróom-ñett timis 19 heures 8 ñetti simili gee 20 heures 19 juróom-ñetti ñeent loolu mooy waxtu julli yi si Touba ak li ko wër bu fekkee nekku Touba soo ko féetee penku ñaar fukk ak juróom-ñaari kilomètre dina wàññil benn simili soo ko féetee soowu ñaar fukk ak juróom-ñaari kilomètre dina yokkal benn simili soo ko feetee gànnaar wala Saalum téeméeri kilomètre dina yokkal benn simili jant bi dana fenk 6 heures 56 juróom-benn waxtu yu tegal juróom fukki simili ak juróom-benn di so 19 heures 4 juróom-ñaari waxtu yu tegal ñeenti simili yàlla na nu yàlla nangul te nangul leen amin